dañu ko daal di war a def ndax nag nee na loi bi dañu ko daal di war a appliquer moom nag jàpp na ni loolu mooy conviction am ci mbir moom la voilà mu nekk kàdd yi nga xamante ne ñu bëri ci askan bi ñu koy daal di ñaawlu woote leen ci numéro yooyu mu mel ne am na mbokk bi ñu jël ko salaamaaleykum. salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi nuyu naa bu baax a baax. tuuti ba maa ngi leen di nuyu waa 2STV maa leen di nuyu bu baax. ñu ngi lay fay bu baax a baax macha allah. sinon damay lépp tur bi euh, yàlla na yàlla yàlla na jàmm ñëwaat Sénégal. amiin yaa rabbi ñu bokk ko ñun ñëpp. yàlla nañ julli ak jàmm yàlla mu san si seytaane. amin amiin amiin yaa rabbi. waa déggee lu xaw Sénégal rusloo na trop trop léegi ñu ñu nekk sàll boo waxee Sénégal nga sàggaay dañ lay xoolaat quoi. ndeysaan dëgg la. bon gars dañ war a toog ñu waxtaan ñu xam ne nguur yàlla moo koy maye yàlla moo koy jël. Mm-hmm. léegi ñu famille bu ñàkk seen ñu ñàkk seen doom yi ñii si sont des avenirs de de de sénégalais demain mm-hmm. waaw parce que actuellement sans vous mentir ah, ñu ñu nekk si àll bi nit bu waxul dëgg rek wax fen ngeen jéggal ma si wax bi mais dañuy rus complètement dëgg mais nag euh, sama wax du bëri parce que sama xol dafa fees yàlla na jàmm ñëw rek yàlla na jàmm ñëw Sénégal merci. yaa rabbi jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax mbokk mi yal na la yàlla dégg yal nañu yàlla may jàmm may ko yeneen réew yi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 maa ngi gis liggéey bi merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal effectivement partagé leen aimé li nga xamante ni mooy live bi ngir ñi nga xamante ni mënuñu jot notification mën ko daal jot euh, soirée. Bamba euh, Bambo merci beaucoup merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 13 08 99 25 24 02 à su ko defee ngeen daal di mën a bokk ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi ak ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko jamono ji ñu toll nii ñeel Ousmane Sonko di de Pastef li nga xamante euh, jamono ji ñi nga xam ne ni daal deleem euh, tey jile lay yam bu 17 heures jotee ngir mu daal di interjeté ab appel ca naka noonu tamit gis nañ ne nañ délai 15 jours la ko mayoon ci diggante bi gis nañ Adji Sarr ak ki nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye ku ci nekk interjeté li nga xamante ni mooy appel mais boobaak léegi nag Ousmane Sonko euh, moom mi lee euh, ñi nga xam ne ni daal tey la ay euh, délai di yem ci loolee mu mel nam na beneen mbokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si naa def. maa ngi fi alhamdulilah mbokk mi tur bi ak fay wootee. damay leb tur bi. d'accord lebal nañ la ko. voilà donc damay ñëw si ñetti ponk yi ngeen wax mooy euh, condamnation Ousmane Sonko Cheikh Yérim Seck euh, mhm. voyage euh, makisal bi mhm. voilà léegi il faut que xam contumace mhm. contumace bu ñu ne dañoo jugé nit ci contumace day fekk mooy nit boo xamante ni xamoo fu mu nekk te te mu te amoo te mënoo ko jot mënoo ko teg loxo ku ñuy jugé contumace mooy ki nga xamante ni xamuñu fu mu ne te mënuñu ko teglo Ousmane Sonko bis buñ koy jugé mi ngi woon këram xam nañu fu mu nekk te mënoon nañ ko teg mm-hmm. ñoom ñoo ko wëroon ci këram benn mm-hmm. deuxième bu doonoon jot na convocation Ousmane Sonko jotul convocation su doonoon convo su jotoon convocation day am ordonnance de prise de corps kooku fu mu mënti nekk dañ koy jël par la force yóbbu ko joxuñu ko convocation donc mënuloon daw mënul dem fenn ki nga xamante ni jot nga sa convocation nga ne mes mainten réer ci dëkk bi kenn xamul fi nga nekk te mënul jot ci yow kooku la ñuy wax contumace waaye Ousmane Sonko jotul convocation te gars yi xamoon nañ fu mu nekk te mënoon nañ jot ci moom donc loolu ñuy wax contumace noonu nañ ko teg fekk mm-hmm. benn mm-hmm. léegi Ousmane Sonko buñ ko yóbboon tey kaso buñ ko tëjoon tey mu def bu duggee biir kaso rek mu def appel daan buñ ko def lépp day day day daal jeex mm-hmm. bu defee appel bu duggee kaso tey tey tey suba suba mu def appel lépp li nga xamante ni mooy daan day daal di jeex tout de suite ce qui veut dire dina am droit am léegi ñu nangu ko teel a atte wala ñu ñu ajam di mu ko loolu teewul Ousmane Sonko doon candidat mën na nekk biir prison ka parti am ak euh, déposer candidature am ñu battre campagne mu gagné Khalifa Sall nekkoon na fi prison ñu battre campagne mu gagné élection mhm. Ousmane loolu mën na ko dal mais loolu yëpp mooy c'est-à-dire yi sax ñoo warul toog di xaar yooyu yëpp di am fu mu toll nii. Mhm. farata bi mooy dem libérer Ousmane Sonko pour mu mën a am liberté maire la leader politique la. te président association des maires du Sénégal donc lu koy xaar lu bëri la war nañ ko mën a libérer mm-hmm. patriote waruñu mën a taal tabaski fekk Ousmane Sonko amul jot pour tabaski parce que nee nañu pour sa tabaski sax mu mën a nangu sax daa fekk sa dëkkandoo bi nekk sa wet am na jàmm bu amul jàmm mënoo tal mënoo tal fet mm-hmm. te bu mu amul sax xar sa war nga ko mën a jëndali mu jëndi xar kon ñun bu ñu naree tal fet Ousmane Sonko talul fet dafa fekk nag ñun suñu jullite war nañ ko mën a xoolaat bu baax. Mhm, mhm. n'est-ce mhm. léegi Cheikh Yérim Seck. loolu la ñuy wax apologie de génocide gis nga peuple sénégalais boo mu wax noonu mun nañ leen rey bu ñu naree jugé Ousmane Sonko tëj ko te bu ñu naroon rey quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais ça veut dire que le peuple sénégalais doit porter plainte contre Cheikh Yérim Seck pour. apologie de génocide mm-hmm. moom lu ko leer ni ci dix pour cent yooyu war a dund moom moom da ciy bokk mm-hmm. nee nañu ay du yem ci ci ci bopp borom mm-hmm. donc moom bu dee bo dina bokk demeen ci dix pour cent yooyu donc dafay fekk moom lu ñu lu muy planifier ni kon bokk na si ñi nga xamante ni dañuy préméditer crime bu dee demee yëpp loolu lu mu wax sotti na quatre vingt pour cent yooyu moom bu yaakaar ni dina bokk ci dix pour cent yooyu Konté moom bokk na si nga xamante ni ñu ngi togg mbir mi mm-hmm. donc peuple sénégalais boobu nga xamante ni moom la moom lay yéene loolu peuple bi dafa war a porter plainte mm-hmm. Cheikh Yérim Seck loolu bu ngeen ko seetaan parce que kenn du wax loolu ci biir réew parce que sa intérêt yow pré pare pare nga pour ñu rendi sa sa sa waa réew yëpp loolu kuñ ko wax ku ne parce que Cheikh Yérim Seck dafay toog loolu mu wax noonu xam lu muy teg maanaam yow man dafay ne par exemple diw yow dañ lay rey diw sangam dañ lay rey c'est-à-dire bu nekk loolu lay teg man Cheikh Yérim Seck dama lay rey yow diw man dama lay rey yow diw sangam Ndiaye dama lay rey yow diw sangam Diop man dama lay rey yow diw sangam euh, Ngom dama lay rey loolu lay tekki donc Cheikh Yérim Seck bu ñuy yéenee rendi ñun ñun bu ñu ko déggee loolu. dañu war a porter plainte Sénégal yëpp moo war a porter plainte wala ñu def benn pétition boo xam ni dañuy porter plainte chez chez Yérim Seck mm-hmm. pour appel au meurtre du peuple sénégalais pour au meurtre du peuple sénégalais mm-hmm. bu ñu gars dañoo gaaw wax appel à insurrection moom appel au meurtre du peuple sénégalais lañu koy def dañ ko war a porter plainte waaw mm-hmm. léegi beneen ponk bi mooy voyage Macky Sall bi voilà xam nga les Européens la dañoo dugal seen bopp ci guute boo xamante ni mënuñ ci gën dañoo xam xaal boo xamante ni mënatuñu ko fay hmm. léegi foog ñu wut ñi nga xamante ni ils sont un peu neutres pour ñu jàppale leen si mais africains yi ñu fay yóbbu dañ leen di kayitloo rek c'est juste pour gagner di temps pour ñu mën a xool lu ñuy def parce que ñoom seen objectif pour génnee Poutine la ci ci système bi parce que Poutine moo leen di empêcher dund léegi ñoom lu ñu fay dem doxi ni du doon loo xamante ni amal na njëriñ Afrique parce que dañu ne conséquences yi mu ngi ñëw ci ñun ñëpp ñu ngi ressentir conséquences yi ah président africain yi ñoom lu jiiteel c'est Afrique duñ koy xoolal Sénégal mi ngi toj kan moo fi jël avion ñëw Sénégal ñoo mm-hmm. ngay dem Europe di jël Europe dëkk mi ngi toj présidence africain di def cinq président di yéeg di dem di dem Europe Sénégal ñu ngi rey ay nit kan moo fi jël avion bu wàcc fi mm-hmm. ban président africain moo fi wax ku jël avion ñëw day dox diggante. li nga xamante ni mi ngi xew à des milliers de kilomètres ngeen jël avion dem Congo ak Rwanda ñu ngi jote kenn adouci ci Afrique problème Éthiopie fii la amee benn africain waxu ci ñun lu ñu concerné duñ ko tal mais ay problème mu jàmbur la ñuy dem tal suñu problème dañ koy bàyyi di dem tali problème keneen mhm. loolu nag foog ñu bàyyi affaire boobu ñu xam nag suñu priorité lan la voilà donc lépp li nga xamante ni sénégalais def nañ ko ci jamono bi te libéré ñu Ousmane Sonko ne leen leer ni bu Ousmane Sonko tabaskiwul képp ku tabaski amoo tabaski <laughs> ren jii voilà merci ah, merci beaucoup 88 626 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 lay nuyoo euh, Malick Ba Mansour Guèye Tafa Dieng maa leen di jaajëfal bu baax a baax Cheikh Saad bu Mbuub maa lay nuyu bu baax a baax Malick Ba du nuyu képp ki nga xamante ni jamono ji yaa ngi teewlu bi lay émission ngeen partagé aimé live bi su ko defee ngeen euh, sécuriser ko waaye tamit ñi nga xamante ni jotuñu notification mën a jot mën a bokk ci li nga xamante ni mooy euh, waxtaan bi ma bamtuwaat ponk yi nga xamante ni moom la daal di waxtaane mu mel ne am na bokk mu ne ci ligne bi ñu jël ko ba noppi su ko defee ñu dikkaat ak yéen ci ponk yi salaamaaleykum. salaam soxna si maa ngi fi alhamdulilah mbokk mi tur beeg fay wootee. alors oui maa ngi man la maa ngi wootee depuis Ziguinchor damay leb tour bi comme d'habitude rek. moom Ziguinchor ñu ngi lay jëfal bu baax a baax. waaw waaw soxna si moom moom xam nga. Mhm. tey moom comme li ngeen di wax rek comme li waa ji génn léegi nii mu wax. Mm-hmm. ñun damay laaj Sénégalais yi wala yàlla sa lañu ñu war a laaj wax ak moom ñun lañ lan lañu def ci àddina ba mérité président bu mel ni Macky Sall mm-hmm. parce que man mënuma concevoir mu am tant de mort fii ci dëkk bi ñu boole ci dégg ni nit ñaa ngi géej gaa ngi yàppi ay néew mm-hmm. allo voilà mu mel ni euh, mbokk moom lay dem na 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 ñu jëkkaat ak yéen euh, ci ponk yi nga xamante ni moom la ñuy daal di waxtaanee affaire Adji Sarr Sonko dernier de l'épouse Ousmane Sonko ngir mu interjeté ab appel loolee nekk suñu naataangooy RFM ñoo ko daal di xamle waa Seneweb relaté ko ñuy xamle ni daal jamono juntoll ni euh, Ousmane Sonko fii ak 17 heures la daal di am ngir mu ni rek mooy appel contesté décision bi nga xamante ni euh, chambre criminelle jël na ko ngir daal di koy daan ñaari atu kaso euh, ferme euh, voilà ci loolee nag ñi ngi doon xam ne ni mayoon nañu ko délai 15 jours ci diggante bi gis nañu Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr ku ci nekk rek daan na interjeté ab appel waaye moom mi lee di Ousmane Sonko nag ñi ngi xam ne ne ni ki tey le délai di yam mu mel na beneen bokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaw man maa nekkoon ci ligne bi dafa coupé woon la yow rek la ñuy déglu ku baax. waaw ñun lu Mm-hmm. Macky Macky war na mën a ne moom day dem àtte ji dëkku jàmbur ku am problème lu dëkk bu mel ni Russie doole bi ñu am Macky lan la leen mën a lijjantil mm-hmm. ah, man dee fois je me demande est-ce que kii dëggul liggéeyu jàmbur ñoom ñëw ñun suñu dëkk baa ngi tàkk coow li jeexagul wax baree guñ ci yow ngay dem di lijjanti problème mu dëkku jàmbur ah mm-hmm. pour lan Sénégal fi mu toll nii tey ñu dem ba toogaat encore ñuy déggaat lu mel ni ay Balla Gaye man li ma gën a métti ak li gën a tax tey ma woote sax ñaar la muy Macky mi ma dégg ma ñu ne dafa dem Russie pour dox ay médiation deuxième bi mooy man Balla Gaye Balla Gaye laa mënta comprendre je je vais vous une chose. Mm. yéen a ngi fàttaliku ni bàll Gaye moom moo fi doon dox caravane de la paix pour la paix en Casamance est-ce que yéen ngi bàyyi xel ci affaire boobu. Mm-hmm. kooku dox tey taxaw di am fenn fu mu féetewoo naan diw a ngi def liggéey bu baax alors que diw boobu ngay wax mu ngi def liggéey bu baax moom moo moom moo jiite ña nekk fii di boom doomu Casamance yi dëkk ba nga doon wax ne yow yaa ngi leen di doxal pour la paix en Casamance mm-hmm. man mii di wax ak yow structure bi may liggéey ci benn ONG laay liggéeyee. je suis chargé de communication en audiovisuel et visibilité foofu laa nekkoon foofu laa nekk ba tey may wax ak yow ñun dañoo participer man bokk naa ci ñu intervenir dem interpeller suñu chef projet pour ñu jàppale Balla Gaye ci dox tànk bi muy dox pour la paix en Casamance. Mm-hmm. côté dañ ko laaj ne ko lan nga soxla ci matériel ñun ñu jóg man maa jóg dem toog wax ak suñu président suñu chef de projet parce que c'était par l'intermédiaire de Gassama journaliste Gassama bi xam ngeen ko yàgg na intervenir pour la paix en Casamance ku gars yëpp xam la mu ngi fi à Ziguinchor bu ñu ñëwee ñu interpellé ma wax ma ko man maa dem ba suñu chef de projet gis leen wax leen ñu jàppale Balla Gaye matériel ak xaalis pour déplacement auto lañ ko jox jox ko sono gasoil plein pendant toute la durée de la campagne bi mu doon def pour la paix en Casamance Balla Gaye moomu tey bu ñëwee taxawee ci beneen côté dina ma jaaxal te boo ko xoolee xam ni kii dafa am lu nekk ci moom kii normal est-ce que mos ngeen gis Balla Gaye takk ay noir fumé parce que léegi depuis que mu commencé njombeen gi lañ ko commencé gis mu takk ay noir si ne toog ci télé beeg di wax ay wax yoo xamante ne kenn xamul mais bu demee ba ne moom day conscientiser la jeunesse mais yow boo moom ku ko def porteur de voix yow nga ne yow de voix nga boo xam ne yow xamoo ki ngay porteur voix bi lan la lan la soxla lan la bëgg. Mm-hmm. xamoo ko yow mi dem ba xàmme woo chef d' ak ministre de l' intérieur vous imaginez ça. kooku man tey su ma ko gisee mu taxaw di wax jooju daf ma dem ba daf ma dépassé man xaw ma lan la ñu def si Sénégal la ñun sénégalais lan la ñu def ba yàlla nattuñu genre nit yii je suis désolé mais man Balla mooy ki ma gën a ci ñëpp ndax position bu ko neexee mu far APR je suis d'accord mais boo faree APR ça ne doit pas t'empêcher nga wax dëgg te yàlla tax. Mm-hmm. parce que moom moom fii la nekkoon laay da doon ko jox xaalis mu ne day dox pour la paix en Casamance. tey mu wëlbati ko lii am Casamance sexu ci yàbbiwu ci waxu ci dara musul wax dara lu jëm ci ñi ñuy rey taxaw di défendre lay nervis bi te xamul lan mooy sensu moo nervis bi mm-hmm. mais loolu daf ma jaaxal soxna si te bëgguma jël temps bu bari loolu moom laay naqarlu man ak man li ma def ci Balla Gaye pour ñu jàppale ko ci lu mu doon dox toofu tànku jàmm pour que la revienne en Casamance. ñun ñii di wax ak man mii di wax ak yow dama dem ci ay zone yoo xam ne jusqu'à l'heure où je te parle jamono ji ay yuutu et fokk et sukkay dëkk yooyu noonu Santhiaba Manjak kenn mënatu faa teg tànkam parce que c'est des zones ne suñu ONG moo fa nekk dina defal ay robinet ay nit ñoo xamante ne xoola dañoo sonn yoon bu ñu jaar pour ñu ñëw ci dëkk bi c'est tout à fait un problème ci géej gi la ñuy jaar parce que moo gën a assuré ñun ñoo leen defaral yoon ba léegi armée bi sax am na accès mun faa dugg seen oto di fa dem ah loolu lépp Casamance di ko dund Balla Gaye tey bu ñuy taxaw ci benn position bi man dina ma jaaxal. d'accord ah. d'accord daf ma métti affaire bi daf ma métti. am na solo parce que ñun dañ ko yàgg jàppale pour que la paix revienne en Casamance tey bu mm-hmm. taxaw ci position bi rek man damay découragé. xamatuma sax man je regrette man ñu ñu fi ñu jaar ak moom. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw salaam maa ngi jégalu na ci temps bi ma jël mais lii dafa ma métti man ci ma gisee position bi mu génnee nii fii Sénégal la ñun ñëpp Sénégal la li ñuy ñaan yàlla mooy suñu Sénégal gi jëm kanam mhm. mais kenn ci ñoom gisoo ko wax wax ju jaar ci yoon jëmale ko ci suñu jeunesse suñu yaay seen xale yi dee gis nga su ma gisee kuy wax yenn wax yi daf may jaaxal seen am na kenn ku ma interpellé ma ne ko sa wax ji ngay wax sa parce que xoolal ñaanu ma ko yàlla mais c'est parce que yow ñàkkoo doom ñàkkoo sa mbokk bu ñu boom ci événement. Mm-hmm. maay kon boo ko ñàkkuloon kon doo wax wax yi ngay wax mm-hmm. mais nañu xoolaat suñu bopp ñun dañoo war a xoolaat suñu bopp xoolaat defaraat jikko yi c'est très important pour suñu avenir u doom waxuma pour ñun parce que ñu nekkatuñu ay jeunes ku dugg ku dem ba dugg ci quarante cinq ans yi yow nekkatoo jeune mm-hmm. mais xale yi ñoo nekk di dee xale yi est-ce que ñoo ñu gën a bëgg Sénégal mais déglul gars yi seen affaire yi ñuy wax ku ci dem hôpital di leen di seet wala parti opposant yi ku ci dem di leen di seeti hôpital lu ngeen njëkk a wax est-ce que président Sonko mu ngi ci jàmm pendant que la jeunesse se soucie pour le Sénégal nous les grands nous on se soucie que de l'argent boo xamante gañewuñu ko ci ngor ak ci dëgg ma am naa bana sama benn collègue APR la mais gis nga depuis ko Fulbert Sambou ak Didier Badji dee te mu bokk ñoom benn dëkk xoolal fu ko fi musaana dal état bi wala Macky mu taxaw da ngeen ñuy werante fii ba ñëpp dégguñu mais fi mu toll nii xoola ñemeetul sëggi xool nit ñi. d'accord moo tax ñu war cee bàyyi xel nag àdduna dafa gudd tànk. am na solo am na solo. ku ci nekk bu doon da nga dépendre ci sa bopp rek ah sa léppay baax parce que ku ci nekk yaa ngi sa kër am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ñu ngi lekk bu baax di tëdd di fayeeku salaire yi baax mais dañoo bàyyi loolu lépp di dem di xeex naka su dul noonu maa ngi jégalu nag soxna si. merci beaucoup jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nga nuyu ñu waa Ziguinchor yëpp euh, beneen mbokk bi nga xamante ni ñu koy daal di euh, bokk na ci euh, Russie Ukraine xeex ba fam jamono juñ toll nii nag président Macky Sall nay rek jël vol ngir daal amal ab tukki foofu la ci diwaanu Kiev ngir mission africaine de médiation entre l'Ukraine la Russie. nga xamante nañ ko daal di desmal ni ki ak juin ci naka noonu itamit délégation africaine bi nga xamante dem teew nañu fa bokk na ci président bu Congo Brazzaville président bu Égypte bu Sénégal ak euh, bu Afrique du Sud Ouganda ak Zambie jamono juñ toll ni ñoom ñëpp nag ñu ngi foofu leen ngir amal ab médiation ci ñaari dëkk yooyu nga xamante euh, ñu ngi doon amal xeex bu metti voilà beneen mbir mi aussi dinañ waxtaane lu ñeel Cheikh Yérim Seck moom mi leen yi nga xamante jox na euh, ko nakarlu bu baax a baax ginnaaw ba muy xam la ni rek su jëlee ñu faat 99 pour cent des sénégalais ngir régler problème Ousmane Sonko jàpp na ni loolee dinañ ko daal di def ngir rek 10 pour cent yi continuer euh, dund seen dundu ci jàmm ak salaam mu ne nag loolu moom euh, conviction am la moom les journalistes investigation bi di Cheikh Yérim